daanaka quatre heures du matin ma woo wax ma ko ma taal sama oto dem fa euh, waaye mbetteel la ndax danoo yëgul feebar euh, waaye nag ku gëm yàlla te xam yàlla euh, lii du la bett ndax du la bett mooy yàlla moo ko fi andi woon moo ko jëlaat yàlla mi ngi la bind nag andi la te tàgguwul kenn kenn ñaanu ko pour mu andi fi bu lay jël du tàggu kenn loolu moo tax amuñu aw naqar amuñu aw naqar tey waaye nag am nañu aw tiis am nañu mbeteel waaye nag dañuy ñaan yàlla tiis woowu ak mbetteel googu yal na ko yàlla sa remplacer aw yiw ak njëggal ci seex si Tidiane Seck kon dañuy sant bu baax euh, comme ni ma ko waxoon léegi rek di euh, sant président Macky Sall di ko jaale di jaale membre du gouvernement bi yëpp di jaale sous préfet euh, monsieur Diagne di jaale gouverneur di jaale préfet département waaye di jaale membre membre du gouvernement bi yëpp waaye nag di jaale au conseil collectivité territorial madame Aminata Mbengue Ndiaye di ko jaale Sénégal gépp di ko jaale waa Thiénaba mag ñu baax yàgg naa dem ba tey demeen wu ne am na kon yàlla mi nga xam ne moo leen wàcce wan dimbali leen ñuy mag ñu baax mu di leen jël parce que ñii amoon nañu ay waajur amoon nañu ay maam sunu borom da leen a jël kon tey bu ñu fa nekkee di def li leen war ci diina ji sunu borom xëy xëy jël leen dañuy ñaan yàlla yàlla yërëm leen te jéggal leen waaye nag jox nu xulum muñ waaye nag defaraat jikko yi ba mën a ànd xalifa bu bees bii li nekk ci xalifa bu bees bi mooy nekk ci xalifa bii dem tey parce que ñoo bokk baay xalifa bii toog tey maam moor taala mooy waajuram xalifa bii dem tey maam Ibra Penda mooy waajuram kon ñoo bokk menn maam waaye ñoo bokk baay ndax ñoom ñëpp maam Talla Seck moo leen yar sëñ Ibrahima Seck li nekk ci ñoom moo ko ci def kon dara beesul dara màggatul ki fi nekkan moo fi ne ba tey ndax jenn jikko la benn askan la waaye benn yaakaar la waaye benn jëmukaay la kon dañuy ñaan rek yàlla guddal faram te eh, woyefal mbootoom te rafetal ko te dollu ko wér loolu lañ koy ñaanal waaye jikko jun xaman ci moom waaye yàlla teg ko tey muy xalifa général eh, yàlla nañ ko yàlla dimbali ba mu ak yóbbu cere ba foo xam ne képp kuy waajuram wala magam mas na fa àgg moom yal na ko paase loolu la ñuy ñaan di ko ñaanal wér ak gudd fan. wàllu taxawaay bu rafet bu mu amoon ci eh, njabootu Seydi Hadj Malick Sy léegi ñëpp xamoon ko aussi. ci topp gum doon topp euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ci ni mu tege woon euh, ba taxoo woon ak moom waaye sëñ Abdou Aziz si Al Amin moom ma tudd euh, lenn da caa amoon mooy moom dafa ba mu njëkkee am jataay ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck daa am yum ko laaj yu bëri ci téere bu mag bi mu tontu ko mu yëkkati téeméeri junni jox ko ne ko fu ma dajee teg yow dinaa la jox téeméeri junni. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si moo euh, Seck si moom moo ko ne ko dama ko xeeb yokkal ma ci ñaari junni nee na mu jox ma ñaari junni ko ñaari junni yi delloo la junni bi bu ko defee ba nga waajal ko beneen yoon xam nga loolu tolluwaay la alors euh, mu doonoon ku nga ne saa yoo masaa ñëw ci buntu kër gi nga koy fekk General xalif général efek ti koy fekk ci buntu kër gi mu dalal nyep. yaatal waaw da ma maanaam doo ko fekk ay tëjoog yooyu yëpp ah saa yu ma masaa woo daa ah man de dara xewul de dama laa xiif rek waaw bàyyi taala la ma daan woowe ba pare nekkoon sunu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck waaw ah, saa yu ñu daan dox jëm Touba dañuy dalal war maaloon sëñ Touba lool daf ñuy dalal gunge ñu dox ak ñun ak tànkam ba ca jumaa ja euh, defloo nu ay naafila ñaanal nu ñaanal xalif bi euh, yóbbu nu ci kër berndeel nu nu fanaan mu ne njabootam nañu xëy gunge ñu ba ca loolu mu daan def nag di ko def ngir alxuraan di ko def ngir diine lëkkale boobu daa ko def ngir wormaalit sëñ Tuubaa loola ñun ñi nekk kuréel bi nga xam ne mooy doxu safar moom la ñu fas yéene ziare ji ko noonu. tey jii lii xew pour wéyal lëkkale boobu mu bëggoon ci biir lislaam moo waral booba ak léegi nit ñi xam nañ ni 14 mars ba léegi amul benn xew-xew bu am bu ma teg sama tànk. Euh, mu bëgg nag barke loolu lii waaye dugalaale ci ci yoon bi ñaan bi ñuy yi ñuy def képp koo xam ne ci diggante bi génn nga fi àdduna ngay kilifa ngay kudul kilifa ñu dugalaaleel ci biir ñaan googu ndax loolooy farata bi bu ma yeggee nag defe naan ca buntu dëkk ba yem. ndax comme dañuy tere tàncaloo bi du bokk ci loolu waaye du tee dinaa def li nga xam ne mooy sama yéene maag ñii ma ko àndal